Thiès dafay dëkk boo dafa parce que xoolal dëkk plus de cinq candidatures <laughs> à la à la présidentielle amul benn dëkk bu ñun Thiès spécificité ville bi loolu moo yàq dëkk bi dégg naa dégg naa temps am benn candidat sax buy wax naan waaw man maa ngi liggéey foo xam ne dañuy defar avion deux deux avions par mois xaw ma euh, ku ma jox ay euh, usine ma dawal ko nee leen ko mu ñëw ma jox ko caabi yi. pourtant Thiès la de. nee leen ko mu ñëw ma abal ko ko ngeen seetaan yéen xam ngeen ko. nee leen ko Ibrahima Makodou Fall nee na ñëwal mu abal la usine bi nga dawal ñu xam. Mhm. gis nga Thiès dafa dangereux parce que ku yeew rek di wax. te xamuñu dara dara ci li xew ñun nag duñu wax duñuy liggéey man ñooy dama leen di xool di ree rek su suñu mënee nanu def li ma def man man privé la ma jël ay risque dem wuti xaalis bitim réew ñëw investir ko sama dëkk di liggéey di defar loolu laa xam waaye ñëw di wax ku kii ngay ngay critiquer di kii te defuloo dara ci dëkk bi man ñooñu duma leen tontu ñooñu amuñu amuñu importance mais xam ngeen li ko defoon xam ngeen li ko defoon dan ma xeex yàq usine bi te ñi ko yàq ñu ngi fii ji biir Thiès. Ah dinaa leen dinañ ci dellu si bàyyi leen ba campagne bi ñëw dinaa wax Thiès waay yi li yàqoon usine bi. dina len wax li yàq usine bi usine bi alhamdulilah revivre na parce que usine bi léegi soo defee coton def sa électricité liggéey. té à 10 ans amul ce donc avancé nañu. ce candidat dafa doy de euh, le chemin de fer en tant que Thiessois. lan lay euh, wax man dom cheminot la ñi jëkk défendre chemin de fer ci la chemin de fer dañ koy défarat c'est pas xam nga damay dégg sax ay nit di wax ay. Il euh, yoo a ne dara chemin de fer à grand écartement ak yu ma xamul loolu amul. chemin de fer écartement standard ou wala large écartement grand grand écartement ku koy wax ne boobu da nga xaw jànguloo te réseau bu nekk dafa am écartement Nous te ñun avec le Mali donc suñuy def projet tenir compte ci interconnexion Ce c'est pas un petit projet je suis d'accord pour la réhabilitation de la, des chemins de fer d'accord taa ñu retracé waat sax euh, euh, carte ferroviaire Manam rail, raay bi fi muy jaar loolu yëpp xalaat la liggéey la premier lieu d'accord n'a pour engager ou pour défendre le rail man industriel là, te xam lan la ñuy lan la ñuy wax. chance président Macky Sall pour élection yi ñëw. mais dafa toutes les choses. Thiès du problème dañuy wax ak Thiès waaye Thiès dafa am discours bu leen doon tenir bu baaxul man nag dinaa wax ak ñoom dinaa dugg fépp wax ak ñoom commencé naa wax ak jeunes yi da ngay wax ak ñoom ba pare ñu ne la ñi ngi sog a xam. xamuñu wa mais dina wax ak jeune. mais parrainage bi déjà dégguñu lo ba euh, euh, parrainage sama travail yi pare na nu am nañu 4000 fi nek nekk. bëgg naa ñu yegg 5000 fiches yaa ngi ak man mais déposé gum nañ déjà autour de 3000. mi yoré naa sama saak yoo xam ne compté gu ko waaye léegi ñu yegg 5000 parrainage xam nga travailleur NSTR ak seen famille ñoom xam nañ li Macky Sall def ci biir Thiès. képp ku ne Macky Sall deful dara ci Thiès da ngay wax lu neex parce que usine bu tëj 10 ans nga fexe ba mu doxaat boobu ci quoi war nañ ko amee njukkal c'est ça qui est important li ci dess nak ne man privé la usine bi fu ngeen c'est ça qui est important et je donne l'engagement au TSO. objectif est de faire nga fas yéene man ci sama wall, NSTS 400 personnes Comment c'est 300 personnes Pierre bëgg 3000 personnes installé 600 ateliers Il def bu en moyenne 5 personnes loolu su Thiès waay gëmee ñu réaliser